bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi ahyaana ba'da ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd seen mbokku Ibrahima Dramé ci wàllum xarala gi suñu mbokku di jaawo jàllo ginnaaw buñ sante buur yàlla subhaanahu wa ñoo ngi julli di sëlmal ci sang bu tedd bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xam ngeen ne suñu waxtaan bu mujj bu ñu defoon ak yéen ñu ngi taxawoon ci xew-xew su mag nga xamante ne bi iznillahi subhaanahu wa ndem soob na yàlla dinañ ci dugg ci fan yu néew te moo ngi nii di dëgmal si di xew-xew tubaski muy iidul adhal mubaarak noo ngi ñaan yàlla buur bi tabaraka wa buy ñëw yal nañu fi fekk waaye buy dem yal nañu fi bay te lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi buñ demee seeti suratu saafat dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa taala di yenkeewal suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran ba yore ni ci aaya cent trois cent quatre ba keroog ngay àgg ci aaya cent neuf démb fa lañu taxawoon mu nekk jëf joo xamante ne examen boo xamante ne épreuve bi nga xamante ne suñu maam nabiullah ibrahim alayhi ak njabootam di doomam di ismail alayhi salaam waaye ak soxnaam bi nga xamante ne moo meññ ismail alayhimu salaam gannaaw bu buur yàlla dogalee ci fami boobu ngir ñu jëf li nga xamante ne moom lañu ñu won seen kilifay kër gi ngir mu def ko la doom bi tontu baay bi démb waxtaane nañu yéen ak loole waaye soxna si nekk kër ga di wayjur bu jigéenu Ismaayil moom it taxawaayam waxtaanoo nañu yéen ci loole laaj bañ duñ laaj mooy est-ce ñun nangul nañu suñu boroom la yonent Yàlla Ibrahim nangul boroomam est-ce que ñun ñu ngi topp suñu boroom la nuroo nii la yonent yàlla Ibrahim nangoo topp boromam hmm? est-ce que suñuy soxna déggal nañu ba déggal suñu boroom kom na njabootu yonent yàlla Ibrahim déggalee boroom këram ak noonu mu déggalee boroomam est-ce que suñu doom yi déggal nañu ni Ismaayila déggalee baayam walla comme na Ismaayila déggalee baayam comme na baay bi déggalee boroomam bu fekkente ni lii mooy suñu événement suñu xew-xew feet bu mag bay dégmal si di idul adhal mubaarak di bisi tubuski bu fekkente ne na njaboot woowee mel ca yàlla ñu nit noonu lañu mel ci yàlla kon médité nañu tëbaski waaye bu fekkente ne na njaboot yooyu mel fa yàlla ñun melowuñu noonu fa yàlla na njaboot yooyu mel ci seen kilifa kër gi ndax ñun suñu soxna yi ak suñu doom yi noonu la ñu mel ci ñun bu dee waaw waaw kon mat nañoo tëbaski médité nañoo tëbëski waaye bu dee deet kon nañ leen xool ña tëbëski nañ ko defee ak ñun nañ koy defee ba xam benn la bu ñu ko nattee ñu daldi ko passoir bu dee yeyoon nañu ñu tubaski kon dinañ ko xam bu dee yeyowuñu tubaski dinañ ko xam bari waan ku naan daa tubaski déedéet kooku ndawal la jëfandiku bésu tubaski ba tax na Rewmi FM 97.5 ñu fas ni leen dégtal xibaar ba yenenti yàlla muhammad jëlee ci alquraanul karim ci saar bi nga xamante ne mooy suratu saafaat xew-xew bu mag ba xewoon diggante wayjur bu góor ak wayjur bu jigéen ak seeni doom di seen taaw mennum doom boobu dong la gis ci dundu àddina waaye yàlla géntiloo seen wayjur bu góor di kilifa kër gi ne ko niser ba nga niseroon ne boo amee takk ndeer danga koy reyndi ngir sante ma ko man yàlla ndax amul dara lu war a dox sama digganteeg yow keroog bu xale bi tolloo ca waxambaane ma mu tolloo ci digg doolem la ko buur yàlla géntaloo ne ko a ah, góor gi Ibrahim la nga niseroon de fii laa ko bëggee te waxtu wa jot na gannaaw bu mu jëfandikoo jumtuwaay ba mu war a defaree xale bi bi maanaa daas paak bi wara jubale ci xale bi nal ko reyndi effort yooyu noonu yépp lu mu def góor góorlu ba mu nekkee ngir jëfandikoo paak bi ngir def la ko yàlla sant moo tax aaya bi ne falamma aslama famille bi ñoom ñëpp bu ñu dàkkooree ci ndigalu yàlla baleen yàlla digal ne seen jur bu góor dafa war a jëfandiku la mu gis ci gént bi loolu la war a jëf wa tallahu lil jabin ibrahim daldi jaaxaanloo doomam bi di Ismaayil bu mu commencé di waaja rañaan ci baatu Ismaayil buur bi tabaraka wa daldi ko woo mu ne ko wa ñu daldi woote ku ñu woo an yaa Ibrahim Ibrahim la yàlla woo waaw woote bi nag la numu ba xam baatu yàlla jib nopp Ibrahima dégg ko loolu beneen xissa waaye yàlla daldi di xamal Ibrahim ci anamu woote mu ne ko xad ca dégg dégg dégg sadaqta ruya déggal nga gént ba nga gént de gént ba nga gént ne sama doom man de dañ ma won ci biir gént gi ci nelaw ma lay reynde loolu noonu dëggal nga ko waajal nga sa bopp waajal nga sa doom waajal nga jumtuwaay ba nga ko nar a reynde loolu yépp mat na aa ah, kon nag xat ca dëgg-dëgg-dëgg sadaqta ruya aa ah, dëggal nga gént bañ la géntuloo waaye nag inna naka ñun yàlla kadalika nii rekk la najizil muhsinin ca la ñuy fayee woy rafetal ñi kon yow mi nga xamante ne yaay kilifay kër gi na nga roy Ibrahim ci rafetal ba ko yàlla compensé na nga rafetal ni ci yàlla Ibrahim ni mu rafetalee keroog bu doon waaja rañaan ci baatu doomam di Ismail rafetal boobu Ibrahima rafetal jëmale ko ci Ismaayil nanga ko rafetal jëmale ko ci say njaboot rafetal boobu yonent Yàlla Ibrahim rafetal jëmale ko ci soxnaam yow it nanga ko rafetal jëmale ko ci njaboot ñi soxna si na si jiitu mu rogalaat wàcc bi si njaboot su ndaw si rafetal ba Ibrahim jëfandikoo jumtuwaay ba mu war a rañaane ci baatu Ismaayil yowit na nga rafetali noone ci baatu gàtt bi nga war a wuutali Ismaayil waaye yow soxna si na nga rafetal comme ni soxna Ibrahim rafetalee jëmali ko ci borom këram yowit na nga rafetalee noonu jëmale sa borom kër comme na suñu yaay ju baax jooju rafetalee jëmale ko ci borom këram waaye yow doom bi tamit nanga jël màndargay doom bi ñu naan Ismaayil nu mu rafetalee jëmale ko ci wuy juróom bu góor yow it na nga rafetal jëmale ko ci sa wuy bu góor yow xale bu jigéen bi yow xale bu góor bi mm, ngàllawaay benn la rekk nañu leen rafetal jëmale ko ci suñu wuy jur yi nga xamante ne ñoo doon sabab ba ñu gani si àddina parce que feet ba ñuy feete bakkenu waxambaane moo ci naroon na des waaw bu fekkente ne yàlla dafa dogal bakkenu waxambaane soosu des si feet ba ñuy feete waaye kon dëjëy gën a bëri rek waaw du am temps di jalle kenn kenn du am temps di toppatoo niwu kenn waaw ndax su ko defee loolu day métti rek te su boobaa xanaa ci mbaaxu yàlla nit ñi di mun a jurante ci beneen anam waaye anam bi ñu nekkee nii di meññante ci kaw suuf si loolu moom tasalsul boobu day dagg waaw ndax góor moo war a doon xar ba ñu war a reyn waaye fonk ba yàlla fonk doomu aadama teral ba yàlla teralee doomu aadama mu jël doomu aadama jooju remplacer ko xar bu mag xar bu mat xar moo tax nga gis aaya bi daal di buur yàlla tabaraka wa taala na ci saar bi inna haada lii ma def nii ismail ak soxnaam ak doomam de ah lii de mooy la huwal balaaun mubin lii mooy épreuve bu mag épreuve bu leer épreuve bu ngande lii mooy nattu ju mag ji lii rek doy na nattu reyndil sa doom waaw dinaa ko reyndi yaay ji d'accord doom bi d'accord baay bi daal takk xar kanamu doom bi jaaxaanloo ko nar koo reyndi allahu akbar lii nattu gënu ëpp ci natt àddina yàlla nee na ci téere bi gannaaw bu ibrahim doggee ba mu nar a jëfandikoo paak bi wa fadaynaahu ñu daldi muccal ñu daldi wuutale bi zibihin adim ci kuy gu mag kuy goo xamante ne moom lañ leen waaj a dégtal si nii bi iznillahi subhaanahu wa taala yàlla nee na nag jëf jooju yonent ci la ibrahim jëf ak soxnaam sek ak doomam di ismail wa tarakna alayhi fil axarin ci sama coobare man yàlla ma daldi ko dencal daal ko nëbb ba yonentu bu mujj bi nga xamante ne bu ñëwee dinaa ko jox loole dinaa ko jox événement boobu mu nekk feet ñeel ko waaye ak xeetam su ko defee yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndege imaamul mursalin xaatamal anbiyaa wa imaamul mursalin moo matale nubuwa bay jóge ko fa yàlla nubuwa dagg na amul keneen kuy woote nubuwa ñu di ko dëggal kuddut yonent bi sallallahu alayhi wa te tamit mooy imaamul mursalin mooy njiitu képp ki nga xamante ne yàlla dakaa yónni yonent bi muy sa njiit alayhi afdalu salaatu wa aska taslima kooku bu mu ñëwee nag ca la ko yàlla jox feet bu toll nii feetu tabaski ñu di ko woowee idul adhal mubaarak buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bàyyi te lépp luñ fa jaamu yàlla yal na ko bur yàlla nangu amin ya rabbal alamin yàlla daal di ne salaamun mucc salaamun xéewal salaamun texe ñeel na ala ibrahim sama yonent bi ñu naan ibrahim ak njabootam yàlla nee na kazalika noonu rek lañ koy defee najizil muhsinin nii la ñuy fayee way rafetal ñi nga xamante ne dañuy rafetal jëmmale ko ci seeni njaboot waaye dañuy rafetal jëmmale ko ci seeni mbokk waaye dañuy rafetal jëmmale ko ci seen am di jàmm xatta seen dëkkandoo dañuy rafetal jëmmale ko si ñoom su ko defee loolu mooy aaya bi nga xamante ne moom lañ leen andil ngir mottalee ko aaya démb bi yal nañu yàlla may dégg topp amin ya rabbal alamin mbokk yi bi léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ñun ci waxtaanu fajar fii ci Rewmi FM 97.5 xanaa ñu daldi suubu ci beneen ñaareelu buntu buntu bi nga xamante ne moom day wone ahkaamul udhiya ahkaamul uduxiya mooy atte ya wàcc ci la nga xamante ne moom lañu war a tubaski yan façon bàyyi ma lañu bàyyi ma yi ñaata at lañu war a am su ko defee képp ku ko bëgg a xam nanga ñu may nopp fii ci réew mi fm 97 point 5 mbokk yi bokk na ci ahkaamul uduxiya atte ba wàcc ci lan lañuy jëfandikoo ci mala yoo xamante ne chariatul islaam dakaa daganal ngir ñu defee ko la nga xamante ne mooy tëbaski bu ci jiitu mooy xar xar wan na mat six ans waaw wala waaw kuy war mat six mois waaw bu dee béy la war na mat six ans bu dee nag la war na mat ñaari at deux ans bu dee gëlëm la war na mat juróomi at waaw xar six mois doy na ci Tabaski amma fii senegal moom xaru six mois boo ko jëndee dañ la naan lii foo koy jëmee waaye bu gënee ëpp loolu mooy li gën waaw xar kuy boo amee juróom benn weer ñu ne mat na tubaski waaw loolu mooy àtte ko bugg a ndawal nag dangay jënd xar bu duuf waaye li chariatul islaam wone ne kuy xar ci ahkaamul udhiya atte ba ñëw ci chariatul islaam ne kuy nii la war mel six mois baaxe juróom benni weer waaw joxoñ waaye bu fekkee ne bëy neena loolu mën naa dembe juróom benni at waaw juróom benni at fekkee ne béy la waaw bu fekkee ne nag la nag mën nañ kaa joxoñ nag bu jigéen mën nañ kaa joxoñ bee la nga xamante ne mooy ñaari at waaw ñaari at bu dee nag bu jigéen la waaye bu fekkee ni gëlëm la moom loolu ñu ngi koy natt ci juróomi at waaw loolu mooy atte ya wàcc xeetu mala yañu war a tëbaske xar bëy nag gëléem ñeenti façon mala lañu war a tëbaske loolu la islaam sariyaatul islaam daganal xar six mois bëy nag bu jigéen deux bu dee gëlëm la nag cinq léegi bu fekkente ne loolu leer na ñu dem toxu xool sifaatul udhiya melokaanu jur yañu ñu war melokaanu jur yi ñu war a tëbaske bu ci jiitu mooy jur bi dafa war a mucc ayib salimatan min al uyub dafa war a doon jur jay mucc ayib du am benn sikk ñaareel bi at yasari atrage ne jur bi dafa war a mat at wi daf ko war a mat ci atum sharia waxuñu si nattum atum nasaraan bi de at ya sariya tëral jur bi daf ko war a mat kom na sariya jur bi war naa mat lii ñetteel bi mooy dafa war a doon lu mat ci cër ciraam yi dañoo war a mat cëri jur bi dafa war a mat sëg bu mu doon buy soox bu biir bi daw bu bëggin bi damm bu mu doon patt tamit waaw ñetteel bi dafa xaw niroo ak njëlbeen ba njëlbeen bi daf ne na mucc ayib ñaareel bi mu ne na mat ni sariya ne atum jur boobu noonu la war a matee ñetteel ba nag mu ne jur bi dafa war a mucc ayib ci lépp waaw mu doon ku suur fees del waaw na doon jur bu suur mu doon ku yooy waaw na doon jur boo xamante ne boo ko xoolee sa nga xam ne jur bi suur na mais waxuñu ne mu doon jur woo xamante ne dañ ko forcer walla ñu pompe ko comme ni gaay di def yal na yàlla jéggal nga jox jur bi loo xamante ni client bi bu ñëwee dina gis na ëpp oh, jur bi suur na nga yóbbu ko sa kër ñaari fan ñetti fan nga gis muy yooy biir bu daw waxuñu noonu de jaaykat bi tamit na ragal yàlla ci loolu de waawa sariya daf ne na jur bi doon jur bu suur bu mu doon jur bu loof kon yow jaaykat bi bul profito pompe jur bi jur bi du mun a wax ne client ba koy jënd dañ maa pompe déedéet waaye yow mi koy jaay xam nga jur bi xam na waaye mënut a wax kon nanga ragal yàlla ci jëfandikukaay bi ngay jox jur bi ngir mu lekk nga bañ a doon ku koy pompe muy gonflé wu di xoggale ko ah nga ñëw jaay ko waa ji ci prix bu cher mu dem jëfandikoo ko sax jur bi commencé voilà ay bi yanka def mu commencé feeñ loolu waxuñu ko dañu ragal yàlla ci suñu jaay ak jënd rawatina événement diini yi yàlla ñu yàlla nangul buñ si jógee nag ñu ñëw ci ana yan waxtu lañu sopp ne waxtu woowu lañu ñu war a jëfandikoo jur yooyu maanaam wan waxtu lañu ñu war a toppatoo jur yooyu képp koo xamante ne nan nga reyndi sa yanu waxtu lañ ko wara defaree islaam chariatul islaam yoonal na ne dina tàmbale ci waxtu wi nga xamante ne waxtu ba chariatul islaam tiral ngir képp ku na la rey sa gàtt nanga ko def ci gannaaw bi nga joxe ñaari rakk ci béréb ya ñuy joxe ñaari rakk yi de iid ci fukki fan bu tolloo ci weeru tëbaski te muy zilxijja te mu nekk fukkeelu fan wi nga xamante ne mooy doon bésu reyndi gàtt ga ba keroog jant di daldi fenk ba keroog jant bi di soo ci bés boobee reyndi tëbaski dagan na ci bés boobee ndax bés boobee la tàmbale mu ngi jeexee ci ñetteelu fan ci weeru tëbaski te mooy zilxijja bi maanaa nga déggee ci ne yabda'u lwaqtu sharci li zabixi l udxiya min bacdi salaatu lciid fi fi l axiri fi l ashiri min al zilxijja yowmu nahar xataa gaaba shams axiri ayaam tashriq fi fi salaasati ashara min zilxijja nee na chariatul islaam daganal na képp ku na rey sa gàtt na doon fukkeelu fan ci tëbaski mu doon waxtu wi nga xamante ne dina tàmbale keroog ba islaam yoonale ne képp ku war a reyndi waxtu bi nga war a reyndi di doon waxtu wi ngay tànnal sa bopp waaye islaam moo la koy tëralal moo tax mu ne waxtu wu mu ngi tàmbalee keroog ba ko islaam yoonalee daganal ko képp ku na la reyndi sa xar ko rey gannaaw bi nga joxee salaatul iid ñaari rakk yooyu nga joxe ba noppi fii ashiri min zilhijja ci fukkeelu fan ci weeru tubaski yow mu nahar mu nekk bésu reyndi ba bésu lekk naan ba nee na bés boobu ca la tàmbalee xatta xaabal shams ba keroog jant bi di so axiri ayaam tashrik keroog ba jant bi di so moment yi nga am xar mën ngaa reyndi sa xar waaw du suba rek nga war a am xar suba rek nga ko war a reyndi ñu ne ba keroog bi di so bés boobu daal bésu jouru tubaski saa yoo amee xar nanga ko rendi bi keroog jant bi di sox ba léegi sariatul islam may na la ne ëllëg sa boo amee sa xar reyal gannaaw ëllëg sa ñetteelu fan bi boo amee sa xar reyal bi maana may nañ la nga rey sa xar njëlbeenu fan bu fekkee ne jàppandiwul ëllëg sa mën nga kaa ut nga rey ko bu dee jàppandiwul troisième jour bi war ngaa mën a ut sa xar nga rey ko su ko defee génnuloo ba léegi ci lala islaam yoonal ngir nga am sa tabaski waaw ki ko rey premier jour baax na ci ku mu jàppandiwul islaam may na la nga ut ko deuxième jour bi boo ko amee rendil baax na am nga tabaski ku mu jàppandil tamit ci deuxième jour bi troisième jour bi nag ñetteelu fan bi mooy bés bu mujj bi su ko defee ñu déggee noonu maanaa la nga xamante ne moom la chariatul islaam tinki képp koo xamante ne bés bu njëkk ba jàppandiwul ci yow ñaareelu bés ba nang ko ut boo ko amee reyal ba léegi am nga tëbaski boo fekkee ne ñaareelu bés bi jàppandiwul ñu ne nga ut ko ci ñitteelu bés ba bu fekkee ne ñitteelu bés ba jàppandiwul nga xamante ne yàlla loolu la dogal waaye chariatul islaam lam la may lam la yoonal mooy nga def ko ci njëlbeenu fan ba mooy fukkeelu fan bi bu dee jàppandiwul fukkeelu fan ak bu dee jàppandiwul fukkeelu fan ak ñaareel ba bu fekkee ne jàppandiwul ba léegi nga xamante ne loolu la yàlla dogal nga gém ko góor góorgóorlu ci fukkeelu fan ak eh, ñetteel ba bu fekkee ne jàppandiwul nag nga xam ne loolu mooy la yàlla dogal ci yow su ko defee nii la ñuy déggee maana hadis bi walla maana euh, la islaam andi ci texte waaw ñu bàyyi xel la ñuy jëfandikoo ndax lii yëpp boo gisee ñu tëral ko diine bi du diine xalaat du diiney fekk naa ko fi gay nii lañ koy defee déedéet diine bi dafa am luñ ko programmer ki ko programme di yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam comme nuñ ñu ko waxee nañ leen góor góor lu ñu géem a tënk suñu bopp ci loolee mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal bërëb bi ñiy joxe xibaar ci nasaraan saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana amin ya rabbal alamin yal nañu yàlla boole defal dégg ak topp allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wa wulaata umurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin allahumma taqabbal minna innaka anta samiu alim allahumma taqabbal minna innaka anta samiu alim allahumma ya rabbi taqabbal minna innaka anta samiu alim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ahi wa barakaatuhu ahi wa barakaatuhu ahi wa barakaatu